محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد لا اله الا الله يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي يا محمد يا محمد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 kalimatu laa ilaha illallah tànk jéggaloo leen man aras du ma dal mu nekk aras dalal dalal sama jaam boobu wala sama jam yooy ngay wax su ma leen nartu woon a jéggal du ñu tudd laa ilaha illallah kalimatu laa ilaha boobu bi yëngal aras aras boobu nu ñu koy waxee maanaam mooy palais bi nga xam ne fa lañ ne fa borom bi ne mooy palais aras te nee nañu aras boobu booy xool dayoom ñu ne tey fi ñu samp kaabatullaahi ñépp nangu nañu ne foofu mooy digg àddina fi ñu samp kaaba moo xam xeet boo mën a doon ñëpp nangoo noo fii ñu samp kaaba gi mooy digg àddina ñëpp ñoo ko nangu ñu ne waaw léegi kaaba gi foofu mooy digg àddina ñu ne nga jël benn gerte kemb doomu gerte kemb doomu gerte kemb nga teg ko ci digg kaaba gi ñu ne waa xoolal doomu gerte kenn boobu nga teg si digg kaaba bi xoolal àddina yi mu ko wëree ak la àddina tam àddina wër nga képp wër kaaba gi ak doomu gerte kemb boobu ñu ne tey boo doon misaal ni aras toll ni àddina ëppee doomu gerte kemb boobu si kaw kaaba gi nee na aras ëpp lu fukki yoon àddina lu toll noonu kon aras kan moo xam ne mu doy kon baat boobu koy yëngal ah boo koy for na muy kalamatu laa ilaaha illallah kon sëñ Habib fa tabarakallahu yal yàlla barkeel yal yàlla jàmmal la jàmmal ñu jàmmal mbooloom yi ak biir ak biti ak fu mbooloo jullit na la nekk nag si baatu laa ilaha illallah kon su ko defee alxuraan alxuraan moo ñu indil lépp lu ñuy xam ci suñu borom ñu nekkoon kon alxuraan bu koy jullit du moo xam ci lu ñuy mën a def defe naa ne loolu mën nañ see séentu yiw ak ngëneel ak barke kon loolu la ma alsaan doon wax léegi mu ne ma mbokk yi nga xam ne ñoo cheikh bi ñoo dëkk depuis cheikh bi wax ne dafa bëgg a def tàndal yonent bi salaa salaam ren boo xam ne spécial lay doon ñoom ñoo ngi dëkk fii ci tool bale ci kanam muy Omar Saw ak Ferara bii doom ba léegi ñu ngi fi man nag bii seex bi am ni ñoom ñoo ko demoon doxi ñoo ko demoon jënd ñoo ko ënd kon defe naa ne ñoom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne fi la ñu fekk mënuñ ko tudd sax def nañu ko fii kon li doon wax léegi rek day dellu sewaat kon yàlla ni yàlla fay kon léegi mbokkam yi di frère Omar bi dafa ñaanoon nañu may ko mu jàng alxuraan nga xam ne day dugg si xol te lu jóge si xol si xol lay dugg kon sëñ bi bismillah وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الله الخالق البارئ المصور له العصماء الحسنى يصبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا صاحب الليلة عبده وحبيبه وخليله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكر عنده ولم يصلي عليه فلا ما يسر دمك يسجد عليه الصلاة والسلام نانا يكن الناي تنفي وين كنا خمنا سن متوتي تجول تيمان صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم am na ku ma doon wax naan ma fii ñu nekk waa kër sëñ Touba ñoo daje waa kër Cheikh Al Hadj ñoo fi daje ak yeneen kër ak yeneen dama tudd ñaar yooyu rek moo tax mu ne naa ko laajal mbooloo mi ana ñan ñoo sopp Cheikh Amadou Bamba ak ñan ñoo sopp Seydina Muhammad sallallahu kan mooy Seydina Muhammad ah kan mooy Seydina mooy sama xarit mooy sama soppe am na am na may jàpp kon mooy sunu xarit mooy sunuy soppe wala. Imaam kan mooy waayu Edy Cheikh. Seydina Mohamed. Imaam kan mooy soppe Xubbu Taaha. Seydina Mohamed. boo mënti mënti waxee Seydina Mohamed. maam kan mooy soppeel waa noflaay Seyduna Muhammad su ko defee ñoo ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin te ñun ñëpp la wax mooy ñun ñëpp war nañ ànd ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin jazakallah ndax fekkee bi ñu fekkee mawlid bu ren du ci ñun du am fulla ci ñun du am fayda ci ñun du am personnalité ci ñun du wañ loxo yàlla ci ñun mais dafa bokk ci li yàlla li neex yàlla mooy ñun ñu fekkee ko donte ñu bëri ci ñu fekkewul xëy na nag ñi nasaraan yi yàgg baaxoo nañu bu amee ku génn àdduna ci ñoom te bokkoon ci seen biir dañuy ñaan une minute silence mais ñun du ñu wax une minute de silence ñu dañ naan une minute te ñetti ixlaas ñu ñaanal ñan ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci suñu biir nekkoon ay lieutenant nekkoon ay jàmbaar ku mel ni awu caam nekkoon jàmbaar tëpp kooku musaane gis ni nga ko gis mu toog fii ci wetu cheikh bi daal liggéey liggéey bu rëy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kon kooku bu ñu toogee ci jataay bi daañu ko fàttaliku ku mel ni kii euh, Sakho. ajaratu Ndeye Faat kooku aussi nekkoon jàmbaar ci liggéeyu yonent yàlla Muhammad fii kon kooku tamit bu ñu demee ba toll fii dinañ ko fàttaliku ak ñëpp ñi nga xam ne ay waajur lañu woon ci ñenn ci ñun ñi nekk ci mbooloo mi ñoo xam ne wàcc nañ liggéey ñooñ ñëpp dinañ leen fàttaliku.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 اجعل الجنة مصيرهم ومأواهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلك يا الله وبجودك وبكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kon ñooñu dina ëpp lool ñu ci bu mel nii te yonent bi alayhi salaatu wasalaam tax ñu daje te duñ leen fàttaliku ndax gis ngeen kóllëre day mbir moo xam ne yàlla ci boppam moo ñu ko sàmmloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugguma ci waxtaan bi waaye keroog ba Jaafar wàccee liggéey nga xam ne dagg nañu ay loxoom rey nañ ko ci xare Uhud yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko tàgge ne leen rey nañ waaye saa bu toogaan ci mbooloo su malaaka yi di romb yàlla dafa defal Jaafar mu am ñaari laafi malaaka saa bu malaaka yi te mission dañuy ànd ak Jaafar comme ñoom amuñu capacité wu gis malaaka yonent bi salaa salaam moo naan leen fay leen nuyoo Jaafar mi ngi di nuyu fekk boobu mi ngi ànd ak malaaka yi di dem ci ay mission kooku aussi li ko bi amul pertement ñi nga xam ñoo def éclairage bi def yow la allah liggéeyal yonent bi laa leen di feeñalal ne amul pertement maam Cheikh Ahmadou Bamba nee na màggal Muhammad donte ak benn bekku suukar mu ne yaquudu jannati nee na dafay yóbbu nit mu kon ku ci def euh, ginaar lan ngay am ku ci def xaar looy am ku ci def nag looy am ku ci def gileem looy am tabarakallahu parce que yàlla suy fay lu fay comme yow jaam bi ni nga toll xëy na yow valeur bu francs nga am bu la yàlla fayee 1000 francs du la jëriñ dara mais yàlla su lay fay da fay ci moom na mu toll te yàlla na mu toll kenn mënu ko mesurer kenn mënu ko natt moo tax mag yi ñëpp ko ci yàlla may rek waxuma la yow waaye sa njaboot sax ñoom ñëpp dañuy am ca may ba tey sëñ Fall mi toog nii sët ci maam Cheikh Fall moom demul woon liggéey de maam Cheikh Fall moo demul liggéey mais tey xoolal tey ji màggal nañ ko jox nañ ko wàccuwaay boobu kan la ñu fay maam Cheikh Fall mais rogalaat na ba ñoom ñëpp ñu am ci suba faaw yii di waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox wàcc way yu kawe kawe kawe mais ndax ñoom ñoo liggéey déedéet kan moo liggéey seen maam rasulullahi moom moo liggéey waaye fayu yàlla yaatu bi mu yaatu moo tax mu wàcc ba rogalaat ci ñoom ba nga xam ne ñàkk leen teral sax dina la yóbbu yow sawara jërëjëf jazakumullah na gars yi dañu bëgg miinal affaire yi dama ji moom miinu ma ko man conférencier laa du ma waaw sallallahu alayhi wa sallam kon su ko defee may delluwaat rek na leen ñun ñëpp kon nañu sant yàlla ci yàlla may bi ñu may ñu fekkee bés bii bu ko defee ñu profitoo nag ñaanaat ko ne ko yàlla ñu fay may ñu fekkee déwén ñu fekkee déwén ak déwén ak déwénaat mën na ko yomb na ko te mu defal ñu ñu am wér def ci sunu poos dara ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñuy wax ne bés bi guddi gi guddi kan la Seyduna Muhammad ndax dina doy ñu wax ne yonent bi mu ngi juddoo Màkka yaroo Màkka gàddaay dem Madina jógewaat Madina ñëw Màkka ubbi ko delluwaat Madina génne àdduna foofu ñu suul ko foofu est-ce que loolu kese dina doy ci ñu jàngale yonent bi suñ ko jàngalee noonu rek xamuñu projet de société bi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw di régler lu bari ci ni société di doxee te li ci jiitu mooy fexe mu def nit ñi ñu nite loolu mooy mission yonent bi salaa salaam mooy fexe ba nit ñi nite nettalikat yi dañuy wax ñu ne ni àdduna yàqoo xaj bi dafa romb nit ki taxaw ci mbedd bi di saw xaj bi ci boppam moo ko xool ba seppali ko daal koy ciipatu ne ko yaa ñàkk mu ne xaj bi moo ciipatu nit ki mu ne ko yaa ñàkk jom parce que daf ko muy saw ci mbedd bi saw ci mbedd ci ko kan la woon ci ko mala la woon su ñu demee ba nit dem di ci toppandoo mala ba mala di ko romb di ko ciibatu kon nit kooku war na xam ne nit rek na ko kon nag yonent bi salaa yàlla daf ko yónni ci asken yi pour mu defar seen jikko ba ñu nitee benn waaye dafa wax mu ne dugg naa ci lislaam te man maa xoolal sama bopp ba gis lu ma convaincre ma dugg ci lislaam ñu ne ko lan moo la convaincre mu ne damaa dégg ñu ne lislaam dafay tere sàcc te sàcc dafay suufeel nit dafay yàq personnalité dafay daaneel ab famille ndax tey ndii njoogu njaay bu duggee ci sàcc suñ ko jàppee ba xam ne ci famille tel la bokk famille boobu yépp lañuy ñuy wax ne ay sàcc lañ kon famille ba yàqu na Njóogu Njaay yàqu na dootuñu xajati ci quartier ba mu ne kon le fait que l'islam dafa ñëw di tere sàcc mu gis ne loolu jikko bu noble la mu ne kon diine bi jar naa bàyyi xel nee na mu déggaat ñu ne njaaloo dafa xaram ci lislaam mu ne waaw ku fi njaaloo ay doom nga indi yoo xam ne doom yooyu am na nu ñu leen di woowee mooy doomu ah mu ne te loolu aussi dafay suufeel nit dafay yàq société ndax imaginel tey ci wàllu politique kenn taxaw fii bëgg a gagné quartier bi wala gagné euh, commune rurale bi wala gagné pour nekk président wala moo xam mu taxaw naan day campagne benn nit génn ne ko eh yow noppil yow doomu loolu nga. te biñ ko vérifié doomu loolu la est-ce que kooku mën na fee am dara société bi daa kii na ko maanaam société bi wàcc na ko bugg ko mu ne kon njaaloo comme l'islam da koy tere te l'islam njaaloo dafay suufee nit kon man dinaa embrasser l'islam ndax dekati l'islam ay jikko yu baax ay valeurs yu baax rek lay lay lay jox nit ki kon loolu yëpp pour wan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nite bi nga xam ne moom la bëgg a def ci nit danañ ko fekk a suul danañ sax di yëngatu waaye lépp ñu teg ko ci lu sàkke ndax àdduna actuellement li fi xew mooy dañuy désacraliser tout ce qui est sacré jàkk dafa sacré jàkk kenn mësul xalaat taxaw ci buntu jàkk di fecc tey ñaata clip ngeen di gis ci télévision yi nit taxaw ci buntu jàkk di fecc ñu koy désacraliser ñaata euh, caricaturé dem nañu ba caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp dañ koy désacraliser ba nga xam ne yonent bi dootul sax nit dara waaye gis nga ñun ba ilaa yawmil qiyaam ñun yonent bi rek amuñu leneen maam Chana Cheikh Saadu bi radiallahu taala anhu wax xayrtu dafa wax mu ne yàllay tani kuntu turaaba naali yi imagine ngeen lool mu ne aka neexoon man cheikh na cheikh saad ma nekk suuf bi tak dàllu yont yàlla muhammad maam ibrahima ñas daal di koy feelu daal di saqaani rabbi sal mahabbati sukkirtu bihi moom sax dafa tudd ba wax ne nandal bi ko yàlla nandal bëgg yont yàlla mu Muhammad mu ne loolu sàngara la ci moom daf ko màndiloo ba xamatul leneen lu dul yonent maam Cheikh Cheikh euh, Ahmadou Bamba moom tamit feelu na leen di bëgg yonent bi sallallahu alayhi nekk dama koy wax moom dem na sax ba ne sama jaamu yàlla sax xaaj naa ko ñaar wàll gi may julli wàll gi may tagg fi mat sitta ta'tihi batta maxti mu ne kon sama tund léegi noonu laa ko organisé bëgg yonent bi rek liggéeyal yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam maam alhaaji malik radiallahu taala anhu moom mu ne wa laysa yanfau bila amalin mu ne amul njariñ nga naan bëgg naa yonent di sukk jala ñu ci suuf si xataraayu lu nekk da di ko mu ne te nanguwuloo jëf mu ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ay mandarga mandarga yi bi ci njëkk mooy nga topp sunna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam te moom yonent bi newoon na jamono dina ñëw ki téye ci sama sunna dina mel kun dina mel ne ku sax ay xali safara ndax lan ndax ñëpp dañuy wax ne kii euh, euh, ci bidaa la nekk wala dañ koy sabote wala sax dañ koy jéem a foqati ci moom mu ne nag su boobaa ni ngeen ko ak seen i dégg koy foqati bu mu dee kon amaam alaaji Malick benn bi ci njëkk ci mandarga yi ñuy xamee ni kii bëgg na yont yàlla Muhammad mooy mooy ci sunna ñaareel bi mooy muy julli ci yonent yàlla Muhammad ñetteel bi mooy mu bëgg alquran te alquran bi ah, ngi jooy fii ci Sénégal alquran dafay jooy ndax am naqar xam lu tax muy jooy li tax muy jooy mooy la taxoon yàlla sunu borom wàccee ko nit ñi nanguwuñ ko jëfandikoo noonu ndax alxuraan benn constitution la def ay loi ci biir mais ñun bu fekkee dañu dem ba jël ko nga xam ne léegi tëj kese mooy tax ñu jàng ko wala soxla bu téye kese mooy tax ñu jàng ko su boobaa xamatuñu lan moo taxoon alxuraan wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko benn saxaaba mu ne ko gaay jàngal ma alxuraan waa ji daal di ñëw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون yonent bi alayhi salaatu salaam di jooy di jooy ba sikkim bi tooy xepp ak ndox ak ay rongañ saxaaba ni ko waaw xanaa alxuraan bi ci yow la wàcc yonte bi ne ko dama ko bëggoon ci beneen gémmiñ bu dul sama gémmiñ kon kooku xam na li ko yàlla jox lan la keroog ba abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala di benn produit boo xam ne yonent ya bi salaa salaam moo ko tabax moo ko defar dem ba ne abdullah abdullah ibnu mas'ud bi moo gën a dégg alquran ci sama xeet bi suratu rahman wàccee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko demal ci kaaba gi nga xam ne foofu ay yéeféer orthodoxe ñoo ko nekk ay abo jaxli nag ay otbaak euh, ay euh, euh, ñeneen ñi sax ji ñoo ko nekkoon nga xam ne rey loolu du dara ci ñoom Abdullah ibn Mas'ud daal ñëw taxaw fas yéene jàng alquran ñoom nag seen baat dafa neex man dama leen jéem a toppandoo mais je n'arrive pas mënuma ko damay jéem rek ndax alquran noonu lañ ko soo koy génnee génne ko ci anam bi bi gën a neexee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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم daf ko أبو Abu Jahlin waa ko ba egg ci moom rek jël ñëw yonent bi salaa salaam xool ko am ñëwante ci moom daan ba léegi gars dégg ku ñu saar bi ñu jàng ko ndax saar bi carte d'identité yàlla lay wane ko mu ne ana mooy dellu ci kaaba bi dem jàngi ko mu daal di jugaat ak deretam boobu ko sang ne ko man mu ne ko waaye yow yow li nga ñam doyul toogal xaar keneen dem yonent bi waxaat mu ne ko man yonent bi insisté mu ne ko man mu ne ko waa doy na léegi bu ko kenn dem jàngat kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ñu ko jox te muy alquran moom xam na li ñu ko jox lan la te bi mu ko ñëw di ñu ko jàngalit ci anam boobu lañu ko jàngalee ñu xam digle yi ci yàlla digle ñu taxaw ci xam tere yi yàlla tere ñu moytu ko yonent bi bi ñu waaree ci alquran waar ñu waar ñu ko som nanguwuñu doxal li yàlla wax nangu ñu téréel yàlla fay eh, fay fay doonu moom ci boppam moo ñu kalaamee ak yàlla moo de yaa rabbi inna xawm ittaxazu hada alquran mahjura mu ne ko yàlla ah man de waar daa leen yedd naa leen du ma li ma digal yow wax naa leen ko dafa mel ne dañoo alquran mooy alquran pour seen fajuk aajo kese dimension yonent yàlla Muhammad lu sàggan ne dafa doon wax ak ñi mu nekkal jamono kese déedéet dafay wax ba yowmal xiyam parce que yonent la ko xam ne yàlla daf ko yónni ba yowmal xiyam la mission moom moo fi nekk du jeex damay nettali très souvent dama daje benn xale dafa ñëw suba teel laaj ma mook dafa mokkal alquran mu ñëw mu ne ma dama am benn aaya bu ma gis ci alquran mu jaaxal ma trop ma ne woon naa la ko laaj parce que moom jàpp ne man maa ko sut àll woon te man daanaka ci naf naf laa nekk mu ne ma waa te na bi ñoo ngi ko suul ci seen biir mu ne noo koy kiyee ma ne ko yonent yàlla Muhammad mooy alquran mi ngi ci sunu biir fii ak alquran mi ngi sunu biir mooy yonent yàlla Muhammad mi ngi ci sunu biir lool nag mooy zahir bi mooy maanaam bi feeñ nii mooy apparence bi ñuy gis mooy yonent yàlla Muhammad mi ngi ci sunu biir ci alquran waaye ci mooy moom ci boppam mi ngi ci sunu biir lan mooy tegtal bi Cheikh Abdul Qadir Jeylaani radiyallahu taala anhu dafa wax mu ne nekk naa fanweeri at ak ñett yoo xam ne maag yonent bi ñooy toog nii mu ne bés bu yonent bi ñëwul woon rek damay jàpp ne man génn naa ci lislaam kon loolu lu muy tekki Cheikh Ahmadou Bamba ba muy takk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ilayka yaa dafa am benn euh, xaraf koo xam ne kaaful mu xaatab la دفا جاكار لو جنتي الله محمد نانكو إليك يا خير البرية السلام قديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام بالآل والصحب ربنا السلام خذت مقاما دونه كل المقام يا نور كل عابد سام وقام إلى آخر القصيدة أبا جوري دفا جاب سينو موني كي جانغل كوا لولو أي أمير المخاطب لا موني كي جاكار لو كينا naan ko yow ni ki noonu mboole mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mii ku nekk am nga lu di mel sama doom Muhammad dafa am daayira bu muy fréquenté muy waa kër Gulaamu Rasulillahi sallallahu alayhi am benn kilifa bu ma woo bu nekk ndax mu ne ma est-ce que sa doom boobu xam ne ki muy fréquenté kan la ma ne ko ah ku bëgg yonent bi la te jàng naa ay xasidaam rumtu salaatan wa salaam ak muxtaaro muxtaaro ak yeneen ak xasida yoo xam ne yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ma est ce xam nga ne waajooju daan na lalu ay fani fani fan du génn du lekk du naan ndekete boobu mook yonent bi ñoo nekk ci biir néegam moo tax du soxla lekk du soxla naan nee na tànk yonent baa ngi foofu du génn fii ku lekkul ñetti fan naanoo ñetti fan xanaa nga war a mën a sonn hôpital war am ci yow yoon waaye ñoom dañuy génn gën a wér Moustapha Thiam defe naa ne mbooloo mi fii ñu ko fi xamul bariwul ba ma wooyee dama ko wax mu ne ma est-ce que xam nga ne roulant boobu moom ci kii am dem na fekk ko fa mu daan monter ci faar bi nekk Saint-Louis mu ne ko saa yu ma nekkee fii ci faar bi mu ne ko ah mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu fi daan wéttali kon loolu lu muy tekki mooy yonent bi mu ngi ci sunu biir da ko ko bëgg a gis góorgóorlu la jàppal ci salaatu ala nabi bul xeeb benn sallallahu ala muhammad salaatu la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim salaatu la allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliqa ba mu jeex salaatu la allahuma salli salaatan kaamilatan ba mu jeex salaatu la lépp salaatu boo xam nekk ci rek na ci sa lammiñ tax rek nga xool benn bés yonent bi dina la këpp këpp këpp da ko yonent bi nàndal laaj leen ko bay Babacar Seye radiallahu taala anhu la jële wax la wax mooy saqaani rabbi kasal mahabbati mooy yàlla nàndal na ma meewu bëgg yonent yàlla Muhammad mu dugg ci yaramam meew leer la moo dugg tas ci yaramam ba nga xam ne léegi dara safatu ko loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce gis ngeen euh, góoru yàlla yi boo toggoon ceeb nga kaani ko ba mu saf saf buñ koy lekk sax duñ ko yëg xam nga lu tax cafka bi ñu ñam ci yoon bi moo tax suul boobu boobu boobu boobu boobu cafka soo ko xoromoon buñ ko lekkee duñ ko yëg ñaatoon lañ ko nettali ci maam Cheikh Al Hadj Malick soxnaam danaan wax naan dañ ko daan defal laaxu daqaar nee na mu ñëw fekk yenn taalibe yi kenn lekkul mu ñëw xool ndabu góor gi gis góor gi lekk bosam su ñemee affaire bi taalibe yi day saf saf ak xorom bu ñee laaj na ko Malick waaw noo gisee ñam li mën a ko neex rek parce que xamul sax lu muy sax ndax la mu ñam fële moo suul taf ka gii Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala an ba mu nekkee ca Gabon danaan wóor ba jant so muy witt ci garab ba nga xam ne moo ko tiimoon ñi naan garabu niim la sax ndax wex moom lay jël dugal ko ci gém sàq bi ko sàq bi sàq bi ba ndox bi euh, kii mu daal di koy mu naan ndox mi daal di buusu bi ci des kay naan ndox gi bi euh, cafke gi dafa mel ni comme euh, tullukunu xaw ma na xam ngeen ak jigéen ñi xam nañ tullukunu bu baax ndax léeg-léeg seen buy bi métti moom la ñuy diwoo wala ñu koy diw xale yi aussi kon loolu mooy cafke gi nga xam ne ñu ngi ko doon yëg ci yoon yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nañ leen gën a bëgg yonent bi bëgg ko wax naa leen ko mooy nga fexe ba lépp loo gis ne yonent bi da ko doon def nga nekk ca te yonent bi du dara lu dul alquran Seydina Aïcha dañ ko laaj ñu ne ko kan mooy yonent yàlla Muhammad li Cheikh Aya doon laaj sànq mu ne kan mooy yonent yàlla Muhammad mu ne ko yonent yàlla Muhammad mooy alquran alquran lan la dajale ay jikko yu rafet rek la dajale xool leen saar bi ngay njëkk jàng ci alquran lan la lay njëkk wax danaan bismillahi rahmani rahim ñaari jikko feeñ na ko muy rahman ak rahim mooy ku bëri yërmande lool yàlla ne ko walaw kunta fazzan xaliizal qalbi lan faddu min xawlika faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum na ne yonent sa xol bu xatoon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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبح الناصر عبد الحكيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا هادي خاف قدري وبإقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبح الناصر عبد الحكيم والحادي إلى صراطك المستقيم ولا لكي خاف قدري وبإقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وسلم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له الله على كل شيء حديث ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين yéen xarit yi soppe yi yéen jullit من جامي يلا بن يحصل في مانجل النوس بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانجل زيارة كن كنك ما أتناو go again. man mu gën a xeebu mii ak borom màq ba wala borom dayo bi gën a rëy ci jotaay maa ngi leen di ziyaara kenn ku nekk fi nga toll ci yàlla ak maa ngi lay ziyaara mu noonu te di leen massawu ci coono yi ndax liggéey yombul waaye di leen ndokkeel ci teraanga bi ñu yàlla set mooy mahabbatu rasulillah dëgg la bari na ay soppe ak wëllëre xam ni amoon nañu yéene fekke waxtaan bi may dolli ci waxtaan yi jiitu te ci si mujj ci imaam Mouhamad Touré waxtaan alhamdulilah ci delloo nit ñi ci taxawaay bi nga xam ne moo tax yàlla binduñu imaam alhamdulilah yal na yàlla yokk xam-xam bi yokk maxaama de martaba yi te yal na yàlla téye ndëggu yi yaa ñi fi jaar ñépp ak ñeneen ñi toog te mën a toog fii mën a wax lu ëpp man bokk li ma li ma mun a wax yàlla bu ñu yàlla bàyyi ak lenn yàlla bu ñu yàlla bàyyi fenn yàlla bu ñu yàlla bàyyi ak kenn yàlla nañu yàlla téel lépp bi jaahi borom guddi gi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi am mbégte bokk ci jaamu yàlla yi nga am ne dañuy wéral di jëmmal gàmm dana dox ba yegsi si man am ñu ko tuddee bidda ñoom duñu yàlla duñu rasulullahi duñu far bàkkaar duñu bind yiw moomuñu àjjana moomuñu sawara seen xalaat lañu yor ak seen yaakaar tuddee lu ñuy def bidda waaye bu ñu demee ba si kanamu yàlla foofu nga xam ne xaqul yaqin foofu la nekk dana leer ndax biddaa la waaye ñun lu ñu si fekk ñu jël rasul laay jar nañu loolu rek laa si wax ku am leneen am feneen jëlal ñun rasul lay doy kuy wut leneen te yaakaar ko feneen jëlal ñun rasul lay doy bu ko defee amoon nañu yéene def zikrullah ak way yonent bi te sunu baat neexul waaye lu tax ñu bàyyi nii yëpp mu am solo mooy bu ñu amoon baat yu neex day àddina yëpp danañu dégg ñuy tàgg rasulillah waaye ni sunu baat toll man bokk si lay tàgg rasulillah fu ma jege mën a la wayal yooyu bul am complexe déedéet bu ko rëy bu ko jaay sëriñ bu ko bu ko bu jaay mbaxana wala kilif jéeg wayal yonent bu ko defee maa ngi jël seede si yéen mbooloo mi ak guddi gu tedd gii nga xam ne ngëneel moom ngëneel rek lu tudd bu bañ ngëneel gi demal nga seeti beneen yàlla bu dul yàlla bi ñu am bi ñu bind bi ñu moom su dee mën naa ne mu defal la nga am lu ëpp rasulullaay dema ah imaam moom bokkul si gënante bi déedéet rafaa baxdikum li baxdin darajaatin loolu moom rawante bi mooy ku ko gën jege yaa gën ki nga ko gën jege waaye moom mooy suuf si bi nga xam ne ngëneel si moom lay bal kooku du ñun de borom guddi gi ëpp na di ko xalaat di xalaat sa ko imaam dafa jaar bu bari sànq waaye bu ñu sekkee si lenn li mu wax في سورة الرحمن آية بمي جنن نكول فوق وآية فوق لا كبرانس وما أرسلناك إلا لرحمة للعالمين أرسلت waxul wa maa xalaq ah imam boo ko bëggee gën a dégg da ngay dem ci suratul isra subhaanallazi imam asra extraire yàlla nee moom moom mu màgg mu kawe moom mu rëy nee na moom nee na moo extraire rasulillahi kan mu tuddee ka jaamam imaam tal na fa sànq abdullahi mu ne moo ko jël moom jaamam boobu ba mu koy jël jaam la ko tuddee mu yëgal ko extraire arsal la mu ne wama arsalnaaka ila li rahmatan lil alamin mu ne kii dama ko sekki ci sama leer man yàlla mooy doon yërmande si lépp lu ma nar a sàkk lépp lu mu nar a sàkk ak lépp lu mu sàkk lu amoon démb lu am tey ak lu ñëwagul nee na lépp mu ne daf ko amal muy yërmande si sunu waaj yi borom guddi gi xanaa kon gàmmu gi xaj na si ah yow kañ bu tolluwul foofu si yow demal nga toog rek da nga bàyyi ñu ñun waaw xataa yërmande yàlla bii ñu nekk nii boo xam ne mu ngi tàmbali si yéene ñi yéeti bi wax na boole doole ak xalaat ak ñàkk ak alal ak jot ak yitte boo xam ne ñi nekk fii ñépp ak ñiy wee yeewa koog ñiy noppalu coono bi dal seen kaw ñuy noppalu ñépp kenn ku nekk am na si wàll boo xam ne yonent bi jaral na ñu dajale ko soo bëggee boo doonee jullit bul ŋàññe li baax demal xool li bon nga fexe jàppale jaamu yàlla yooyu te ñaanal leen ñu génn si yàlla santuñu ñun jullit ñu toog di ŋàññante suñu biir ak di xasante di weerante yàlla nee na bu yàlla nee na groupe bu jullit bii nee bu ñu toog di ŋàññe groupe bu jullit bële ah imam nee boo demee sax ñii toog di ŋàññi ñële mu ne boo demee ñi ñuy ŋàññi doo leen gën ko wax du samay wax kon toog di ŋàññe sa mbokk jullit wóorul rafetul li ñu yàlla sant mooy jamia yàlla nee na nañu def mbooloo nañu ànd nañu jàppalante wala tafaraqu nee na bu ñu tasaaroo yàlla nee na bu jullit xas moroomam dañu xool sunu bopp te lu baax nañ ko dooleel xataa boo faram fàccee gàmmu la ngay dégg lan la ay salaatu ala nabi man de lool laa si dégg xaw ma nag yéen te yàlla moo wax inna allaha wa malaykatuhu yusalluna ala nabi kon ku ko def yoon na ko si alquran soo ko bëggee ngañ demal nga wax ak alquran ndax yàlla moo ko wax moo yaa ayyuhal lazina amanu waaw fu yàlla ne moom yàlla moom mi extraire leer bu jóge ci moom mu koy xool ba mu yàgg yàlla bàkk boppam ci kàttanam ak sañ-sañam ak mën-mënam ak dogalam ak limu mu ci namm julli gi yàlla daf ko delloo boppam ci jëlla jëlaaluhu wasal kiram yàlla julli ci sañ-sañam boobu wax malayka yi malayka yi yàlla jëkk bind ba mu leen bindee ba tey ñu ngay maaj di wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha yow kañ danga naan yëg nga ko wala yëgoo ko xam nga walla wala xamuloo ko boo ko weddee foo koy teg mu door a wax jullit yi fekkee woon jamono rasulullaay mu ëmbaale lépp lu war a ñëw ne leen eh kat lii laa dogal si moom samay malaykaa yi julli si moom na ngeen sax di julli si moom man li salli ala sayyidina muhammad wa siyan laa ilaahi wa siyan abada man yooyu laay dégg kon yàlla ñu sant beneen bi boo rombee alquran wala bo ci sabbihu lillahi sabbihoo loolu moom yaakaar naa ne ni mu baree si alxuraan moom ah kenn mënu ko rombatle yàlla ne de may sàbbal mooy laa ilaha illallah bi sërëf sëtu rasulaay bu tedd bi doon wax léegi laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah yow boo woyoful ba koy def demal toog yalla ko wax imam sure dama dul alquran del mo non fa sabih bi hamdi rabbi yalla ko ha أكل القرآن إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أي الله قوة ma ne ñun dañuy gàmm yàlla mi bind jaami sax ñu ngi koy ŋàññ am na jaam yoo xam ne yàlla leen bind di leen dundal yor seen wërsëg yor seen wërsëg yi njaboot ak lépp lu ñam te soo tuddee yàlla ñu teg si lu ñaaw kon ku bañ ku la ŋàññ dangaa bëgg a wutal sa bopp lu yàlla amul du dëgg bu ragal ku leen ngañ li ragal mooy teggi seen tànk du si dëgg ndax yàlla tabaarakahu wa taala dafa wax mu suñ la laajee may kan na jarul ngay sori mu ne waxal ne yàllaay dëgg rek xul jaal yàlla nee na mooy dëgg làkk woo ko waxe alxuraan la dëgg làkk boo ko waxee yaa xamul fu mu ne waaye alxuraan yàlla nee na mooy dëgg te ku teg sa tànk bi si dëgg ànd nga ak yàlla soo ko xamee ak soo ko kon li am solo du ñuy ŋàññaat li am solo mooy nga góorgóorlu ba teg sa tànk si dëgg eh, nan ngay xamee nag ne teg nga sa tànk si dëgg yàlla nee na ah, dëgg mooy yoon wu jub wi ñëw si moom mooy siraati billahi dafa am yoon woo xam ne saa yoo si jubalal rek xamal lu mu yàgg yàgg da nga yegg al mustaqim wala siraat al mustaqim yàlla nag tabaraka wa taala dafa am mu bind ñu suñu ko ñun dañuy am problème ndax fii ñu nekk si boppam problème la fii këbadin la fii problème la moo tax ñaare su nit ñëwee di waxtaan ak man di ma wax waaw man defuma kenn dara yéenewuma kenn dara waaye ñii di ma def lii ñii di ma def lële lu tax may yu ma am jàmm waaw ma ne ko ah, la ngay wax nag dafa nekkul fii mu ne ma ma ne ko waaw yow aljana ngay wax te fii àddina la mhm. yow li nga bëgg aljana la ne diggante aljana ak àddina bii këbadin moo dox seen diggante bii dafa ànd ak fii këbadin problème nat fitna jafé ya, jafé ya, ya, kal kal ni ko sërit yoy bu baax mi waxe rayante problème yi si la bokk na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel si la bokk te problème yi bu mag bi imaam jaar na fa sànq mooy seytaan moo yor usine bi produire problème am ay liggéeykat am ay ouvrier am ay oto yu distribuer produit bi waaw ñuy wër di ah, ñoom seen liggéey bi dañ dox de bi dox bu baax jamono yi dox na bu baax ndax dem nañu àddina bi ba ñu tëj lépp lépp taxaw laa ilaaha la muhammadu rasulullaahi sax moom kenn na ñemetu ko boobu waa kontaan na de ñu ne dañuy protéger laa xawla wala quwwata illa la cey yàlla cey yàlla yàlla bu ñu yàlla bàyyi seytaan yàlla bu ñu yàlla bàyyeeg jabootu seytaan yàlla bu ñu yàlla bàyyeeg programme seytaan ne leen amin na ngeen bari lu ngeen di wax auzu billahi min asheytaan rajim bari leen lu ngeen koy wax na ko bàyyi xel na ngeen ko sóor si la bokk de bu ma toog fàttali moo mag maam Aadama sunu maam mi ñu meññ ñun ñëpp Iblis a ko mag de maam Aadama ñëw na mu ànd ak moom bëre maam Aadama def mission mu yàqal ko li mu koy yàqal waaye yàlla nga déet rek maam aadama dem si sa ñëw mu ànd ak moom noonu noonu ñuy tegale tegale tegale tegale tegale tegale tegale ba suñu waaj dama leen di fàttali ne su doon am na kenn kuy rey Iblis Seydina Muhammad lay doon waaye reyu ko fi la ko bàyyi de deewul de bu ko wutara yaay e dee jóge fi da yàq kenn du ko fi yàlla nee na moom ak njabootam awliyaay shayaatiini yuxrijuunakum minal nuur ilal zulumaat nee na dañuy sëq si leer dañuy fekk nit ñi si leer ñu leen di jël di leen yóbbu si lëndëm yàlla ko wax de lu leen dal jar na bàyyi xel de programme yeeg système yeeg yi ngeen di gis nii ku yaakaar ne da ngay xëy jële ko fi da xew nee dañuy tibb si leer di yóbbu si lëndëm waaye awliyaay laay yàlla nee na yuxrijum mu ne ñoom dañuy tibb si lëndëm zulumaat ilal nuur dañuy jële nit ñi si lëndëm di yóbbu si leer kon ñaari affaire yu jaawaloo la ñaari yëpp a ngayon ko bàyyi xel jar naa sóor fu ngeen toll ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur rasulullah Wa aouzu billahi minash shaitanir rajim nit ku nekk ñett yi war na ko xam ñett yi lan lay wut ak li muy wut fan la nekk ñetteel bi mooy naka lay def ba am ko nit ku nekk maa ngi leen di dénk na ngeen toog ngeen wéet ak seen bopp ngeen xalaat nga ne man euh Ousmane Rougui Sow daaha man lan lay wut di dund nii rek bëgg dund nii rek <laughs> àndandoo gars yi nekk naan bëgg a génn bëti bëti wóorul wóorul de da xëy ba tàbbi su guuta doo ci génn te doo ci neex a génne xataa nit day xam lan lay wut day wéet ak boppam mu xool mu ne waa man lan lay wut soo demee ba mu leer nga ne waaw li may wut léegi loolu fan la nekk boo demee ba xam fan la nekk nga ne waaw léegi loolu nan laay def ba am ko soo ko defee rek noppal ku la ca fekk nag dina la tuddee dof bi waaye yow xës nga ba xam yow lan ngay wut xam nga fan la nekk nan ngay def ba am ko nekk ci rek nekk ci rek nekk ci rek nekk ci rek bul xaddi bul tay hmm. ñi wut àddina nii dañu koy am de yàlla ne na kuy wut lu yomb mu ne dama la koy jox. Hmm. waaye ku bëgg loo xam ne waxuma tey waaye ëllëg mu ne damay yokk naal bi damay yokk tool bi maanaam sas wi day gën a bari na ngeen góorgóorlu. bu ngeen doxee ba xam lu ngeen di wut ngeen xar si seen tànku tubéy àddina yàqul wóorul neexul yàqul wóorul neexul wallahi xam nga lu tax gàmmu gaa ngi nii fi mu nekk nii ba heure trois heures jot na daanaka guddi gi jeex na lu rek lañ doon waaj yëpp daanaka desit moo ci des neel benn kon yàggul ah wóorul ndax mënuñu garanti suñu bakkan yi yéene ak yaakaar lañu am si mu yegg du dëgg bu bu yàlla la so loolu mooy dëgg neexul ndax lenn eh, ñam wi fi nekk nii ndox mi soo maree nga tàmbali ko naan ndox mi nga tàmbali naan soo naanee ba man continué naan continué naan bu yàggee nga wàccu ndox mi dootu la sax dara lu neex dafay sax loo xiif xiif xiif xiif buñ la tegoon boolu li gën a neex boo lekkee ba suur xet gi dootu la dangay bëgg ñu jële ko fii eh kaay teggi bool bi loolu lañu ñu mënoo dëkk di lekk rek mënuloo dëkk di sëy rek xataa lu neex dafay sax kon àddina yàggul wóorul neex waaye àjjana yàgg na wóor na neex na aljana yàgg na wóor na neex na safara yàgg na wóor na neexul mhm. eh, su ko defee li nit war a lijjanti mooy mu dem ba xam nekkinam fii ana lan ana lan la war a am loo xam ne fu mu toll loolu di neex si moom ana lan bu dul li loo am lu bari rek mu sonal la waaw ana la doomi aadama bi war a am loo xam ne toujours mu gën a neex si moom laaj naa leen ko lagi laa koy laaj de dañuy waxtaan mooy sa xol bi fees dell ak yàlla sunu borom su góor góorloo yàlla dimbali ko ba xolam bi fees dell ak cofeelu sunu borom day dund bànneex boobu day day dund sax te mu ne bu te leneen lu bi bëgg xolam bi te du mu wallaahi. xol bi di ko yàlla bind def ko bind ngir ñu bëgg ko moom yàlla moo tax mu bind xol waaye boo sàgganee ba sa xol bi nga duy ko leneen ba mu pees du lu yàlla da lay sonal wallahi wal kitaabi nañu nañu nañu waxante dëgg rek di xool suñu bopp waaye boo góorgóorloo nga duy sa xol bi ba mu fees dell la ak bëgg yàlla suñu borom loo indeeti daf siy xaj ndax looy bëggati yàllaa tax nga bëgg muy alal jabar doom muy kër muy woto muy alal boo tiimoon alal àddinaax li si biir du def dara ndax boo koy téye yàlla tax nga koy téye waaye li tax nga mën a bëgg yàlla mooy nga topp rasulillah qul in kuntum tuhibbuuna allaha waaw yàlla dafa wax Seydina Muhammad mu ne ko waxal gaa yi ne leen liy garanti seen mbëggeel mooy sama mbëggeel si ñoom ndax nit day toll foo xam ne yàlla dootul bëgg a bëggee la summun bukmun umyun fahum yaam day tollu ko yàlla day tracé miir bu dox sa diggante ak moom sa dara dootul yegsi si yàlla nañu si yàlla yàlla day kastare sa xol yàlla ko wax wala jàmbaa ji muy si rasulullah bay teye bàyyi ma téye bàyyi jërëjëf noppalu noppalu yàlla na la yàlla defal noflaayu àddina ak bu yombal xiyaamatu akbar sonn bi nga sonnal yonent bi nii xam nga nelaw dafa ñàkk kers waaw guddi gi noonu la ku sonn rek taxawal ñi dese continuer du dëgg ndeysaan waaw wajaal naa noo mukum subaata <laughs> waaw yàlla ay waxam du dégg waaw fa ko rek yàlla ko bu leen dee sàcc nga yeggu su wajaal naa noo mukum subaata nda tëddal fa ko waaye lépp rasulaay la fii lépp yoon jibal ki tëdd ak ci toog ak kii filmé maa ngi leen di ziare yéen ñuy filmé <laughs> waaw di leen ñaanal jàmm waaye nañu gën a bàyyi xel gën a bàyyi xel euh, diggante yi nañ leen gën a toppatoo waxuma nag matal naa lépp di damaa boo demee am naa yoo xam ne bu ñu ko yullee fii ma dindi sama kaal mën naa nekk di defaralu ma sama bopp de ñun laa ñun ñëpp nañu gën a bàyyi xel jigéen ñi dégg nga euh, yàlla mi nga xam ne moom jàmm te euh, euh, naaj yu ngeen nekk yu defar ñam ngir ñëpp yal na yàlla keral seen dundu àddina ak àllaaxira dégg te yal na yàlla boole leen si barki rasulillah yi jigéen ñi nga xam ne seen ak njaboot dañuy doon teraanga lislaam doon teranga seeni xeet ak seeni askan doon teraanga réew yàlla ñu bokk si njaboot gi nga xam ne dañuy jëriñ seen bopp di jëriñ jaami yàlla yi dégg di di àddina fii dégg nga te ñu bokk si ñi nga xam ne ñu bokk ñi yàlla lay tera keroog yomal xiyaam waaw te nag euh, la ma wax sànq xaw naa leen see kii waale tuuti ngeen bari bu ngeen jaaxlee te ngeen julli ñaari rakk te delloo seen bopp yàlla te bàyyi bu ngeen jaaxlee rek daw seeti sama classe nekk xoolal ma seetal kii seet gisul wallahi mu ne toogal ma seetal mooy man gisuma maa ngi seet kii seet lu gisul kii seet gisul dooñu ma kenn nag dama ñëpp baal waaye yàlla moo gën a gaaw moo gën a wóor yàlla moo jar a yaakaar gën leen gën leen bu ngeen jaaxletee dellu leen si yàlla waaw dellu leen si yàlla tooñu ma kenn kuy seet nag dama ñëpp baal aw ma yitte toon kenn maa ngi jéggalu ñëpp dégg nga waaye gën leen gën leen wóolu yàlla gën ñu ko yaakaar dégg nga ñaan lu ko ëpp li si gën a wóor mooy jàpp julli sell sellal te ku bëgg yàlla di nangu sa ñaan sa làmmañ wi dang si bàyyi fen làmmañ wi fen yàlla du ko déglu de du caaxaan baleen ma si hatta làmmañ wi yàlla def fi bind pour ñuy wax dëgg moo tax mu utal ko ay sécurité mooy bëñi ak beneen bunt nii tëj ko boo demee ba mënoo wax dëgg mu ne tëjal màndu waaye làmmiñ wuy fen moom mu bëgg a yaakaar mu ñaani yàlla yàlla nangu ñaanam day nax boppam waaye ku góorgóorlu ba sa si génnee dëgg la soo woowee sa borom sa borom wuyu kon saxal si dëgg surtout si sunu làmb ak Umar maa ngi lay bàyyi xel yaa mbokk yeeg ñëpp tëng ak njaboot beeg lépp nañu dem rek yonent bi ak maam yonent bi fii ñu nekk nag mooy Medinatu Noflaay yi nga xam ne moom la yat yàlla sedd suuf si ak leer gi mooy boroom xabru bi tëdd fële mooy Seydi Ababacar Sey Xobutaha kooku mooy borom noflaay lu ñu am si yonent bi lu ñu xam si yonent bi moo ñu ko jàng moo ñu jàngal bëgg rasululaay moo ñu xamal bëgg rasululaay moo ñu formé si liggéeyal kooku dundam yépp mooy fexe ba jaami xam kan mooy yonent moom la yàlla sédd bés bu ñuy wax ganale ahlul bayti rasul bés boo xam ne day dajale képp kuy sët rasulullaay di la jox ay teraanga ngir sa maam rasulullaay kooku mooy borom bërëb damay leeral ndax nit dana ñëw si bërëb du xam ko mu ñëw fan te lii ëpp si nit ñi man na ko xam waaye man daaw laa ko ñëw ma ngi sant yàlla waaye dafa koo xam ne moo tax ma ñëw waaw fii nag bëgg yonte bi képp képp 1er janvier 31 décembre bi ba dimanche ñun yonent bi rek la ñu waxtaan moom lañ bëgg moom lañ xam moom lañu am moom lañu yaakaar ñun dañoo feebar ñun taaxa taaxa yi dañoo feebar feebar bi ñu am dafay wàlle mooy feebaru bëgg yonent bi moo ñu dal te bés mu ne ñu ñaan yàlla yàlla mu wér yàlla bu mu wér yàlla feebar bi yokk te du taxaw di yaatu di law di walangaan di sot di yërërëri wallaay guddi gi yaakaar naa ne bi si des bareetul te dañu yeex a tàmbali li ñu ëmboon yépp wala boog li ñu yéene woon xëj na du ñu mën a génne lépp waaye li am solo mooy suñu dajee yàlla daf ñu sant ñun jullit fa zakki te dajab lislaam dajab fàttali la rek ndax kenn du wax lu ëpp la rasul lay wax la ñu waxoon bu jiitu bu ñu ñëwee moo wax li ko féete kaw lu fi waay waxati ba àddina bi jeex sa la moo xoon ngay jël waxaat kenn du indi lu bees waaye nag rasulaay gi day dox loolu foofu laa koy bàyyi su ko defee wax naa man amana billahi si ngeen yeesal bés mun a jébbal seen bopp yàlla da ko boole ak di julli si yonent gis ngeen aajo yi xaajo bi si gën a gaaw mooy salaatu alal la hmm. dee leen bari lu ngeen di julli si yonent bi fekkee yal nañu yàlla defal yokkute ni guddi gi gënee yeneen guddi yi yokkute ngëneel boo xam ne dañ ko yëg saayir ak baati dan lañ ko yàlla defal maam kase maa ngi lay bu baax baax baax bu baax dan lañ ko yàlla defal yàlla dafa dogal rek yàllaay boole ma ñëw fii gis ko ba ma ko gisee nag dafa mel ni li tubaab bi naan attraction moo am sama diggante ak Mo, ndax ma gis li mu wàccee gis li nga xamante ne moo ko ñor muy yàlla kese ak Seydina Muhammad donc ba ma gisee loolu ma ne kii nag sax am na soxla ba ma andi muy ab ñaanlu waaye loolu sax dama ka mujjee xeeb ndax jëmm ju tedd bii teg ay bëtam loolu war na mën a walangaan comme na mu ko waxee nee na boo bañee takk deretu mbaam bul fekkee fi ñuy rey mbaam xuux donc nag man dama gëm ne moom mii la wax lu wér la lu dëggu la ci moom donc man damay wax toujours ñun jullit yi yàlla dafee nekkal ñu ñëpp ñi nga xamante ne gëmuñu ko sax bu ñu waxee nga dégg ñu ne oh my God duñu julli duñu woor mais xam nañ ne yàllaa ngi fi mais ñun dañoo am suñu drapeau muy Seydina Muhammad Seydina Muhammad nag moom bu drapeau mu jógee ñun jullit di dañuy jóg donc tey ñun mënuñu am lenn lenn lenn lu ko gën a foor ndax comme ni ko jëmm yu tedd yi waxee Seydina Mohamed moo waral ñu bind ñu bind lépp lu yàlla bind donc pour ñun Seydina Mohamed bu kontaanee ñun pour ñun baax bu keneen mere tamit baax mais ñun na Seydina Mohamed kontaan donc tey ci guddi gi yàlla xam na ne bëriwul sax ñuy fekkee toog guddi gu mel nii yëpp bëriwul di am waaye nag jëmm ji li ñuy sentir li ñuy yëg loolu nag yàllaa ko def donc ñoo ngi ñaan yàlla ñaan yi ñu fi def yëpp yàlla na ko yàlla nangu incha lépp loo xamante ni def nañ ko fi fas nañ yéene déwén yàlla ful ko ñu defaat lu gën a foor loolu te yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def wasalaam balaa kàddu ko di gën a gudd macha allah